leen bu baax ziar leen jaajëfal leen di leen baalu àq di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm di way di ko sàkku ci yéen ñu leen nuyu bu baax a baax a baax tey nag ñu ngi fi nga xam ñooy arène nationale am fi benn signature contrat bu am solo Fatou Balla Gaye moo taxawal bi la journée le 14 décembre incha allah tey nag spécial bi ñoo taxaw ni ñaari xarit nag ñemente nañ kii njool la kii ndaamu man nag pour ma def xam naa problème da wàcc rek waaw ginnaaw bu sant yàlla julli si yéen bi gërëm samay ñaari waajur. Mhm. maa ngi gërëm ñi fi teew ñëpp. Mhm. waaw di nuyu sama adversaire. Mhm. di nuyu ñëpp ñu teew fii ak ñi seetaan laa mu ñëpp. waaw bi naka la. man la Thiatou Baye Fall. Thiatou Baye Fall léegi di Tivaouane Peulh waaw. ayca ginnaaw bi Thiatou Baye Fall nuyoo dañuy jox ki nga xam ne adversaire am njool la de njool maa ngi lay ziar. waaw auzu bilaa bisimilah inal waal yàlla. jërëjëf borom waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi ñu ngi ñaanal suñu ñaari waajur fañ jëm yàlla na gën a fañ jógee mm-hmm. di nuyu ñu fi nekk ñëpp di nuyu sama adversaire di nuyu ñëpp ñu si raan laamu ji mm-hmm. yee mm-hmm. tey nag ngeen war a bëri yéen ñaari spécial bi gis nga njool bi gis naa ko waaw taxaw na de matul dossier looy wax ci moom looy wax yi wax weesu na jëf moo si des waaw ah, wax booy bi ñeme ngaa taxaw jëflanteeg moom kii mm. si moom la des laamu ji bu nekkoon bund gaala moo fekk ko fa def ko nan. def ko li ma ko bëgg a def lépp. waaw mhm. ah, si li ko bëgg a def lan la doon ko wax non loolu du lu ñuy wax. Mhm. déedéet. mais est-ce que ñeme taxaw di xeex ak booy tapet ma bàyyi bëre dem jaay géej mais pourquoi nga jël ko. lu tax nga jël ko. waaw ah, bàyyi moo fi kenn. Mhm. làmb ji. bàyyi moo fi kenn. moo promoteur seet see fekk boole ak mbër moo booxal écurie sax ma jël combat bi. bàyyi moo kenn ci làmb. waaw avant nga ko jëlee ñaar gisante ngeen. biir koñam laa ko fekk bi combat bi di taxaw. moom mi biir koñam. walaa ko fekk bi ñuy taxawal combat bi. yaa demoon xool ko wala da nga. maa dem ba foofu ko fekk bi làmb mhm. lu may ragal si laamu. amoo looy tiit ci moom. déedéet. ayca ah, ngali moom dee ko def rek <laughs> mais bu nekk si géew bi booy barki maam Serap Fall man maay dirigé. barki maam Seera Fall mi ma yaakaar laa la waatal booy bu ñu déglu bu arbitre sifflé man maay diriger fu ma bëgg nga jaar. fa ngay jaar booy. li ngay xeeñ sangoo woo ko. déggoo ma de li ngay xeeñ li ngay xeeñ li ngay xeeñ sangoo woo ko. adversaire barki maam Seera Fall xam naa nag maa xamul quoi. moo tax mais booy bu arbitre sifflé barki maam Seera Fall luy neexal làmb ji man maa koy def booy doo puus doo paas man maay bëre maay duma maay daan. da xaar ba jamono neex. excentré laa lay teg fàtte la paas li nga xeeñ sangoo woo ko déggoo ba de waaw bu la neexee instant bi wax tollatuñ ci wax tollatuñ ci wax instant yi si waaye li si des di wax yow booy si wax lañ toll moo tax nga nekk di wax mais bu arbitre sifflé man a yow ma bëgg nga def ko fa ngay dem barki maam Serapha tapet nga déggoo li ma la wax yow tapet nga delloo nga avance ñaari yoon lool génnewu la si avance bi lu tax ma delloo ko. du yow. déggoo li ma la du yaw yow ragal nga du yow. doo dërëm avance. du du yow yaa tax man may delloo avance dërëm da ngay man ak yow booy du adversaire. barki man Serap Fall man du lamb. yow du lamb de boo ma nee la man ak yow du lamb rek du lamb. barki maam Serap Fall doo dara. Serap Fall xamul la yow jëlal wax ji di wax. doo dërëm. del wax rek déggoo li ma la xanaa. booy del wax rek yow doo dërëm. yow bu arbitre sifflé booy barki Serigne Bamba dama lay duma dama lay daan borom daaro li ngay xeeñ sa nga woo yow da ngay xaar ba jamono ne ma duma la daan la mais est-ce que li ngay wax moom ñu ngi seelaan mais est-ce que li ngay wax di nga ko dëggal sa bopp man su ma nee ragal booy di nekk fii di wax nii di wax mais bu am cible ngeen jënd glace su ma nee ragal booy bëre yow doo dërëm li ngay xeeñ sa nga woo ko kañ ngay comprendre déggoo li mu la eh, yow li ngay xeeñ sa nga woo ko yow dinaa la daan ba nga yow après ngay comprendre boo ñibbee sa gaale yow da ngay xaar yow da ngay xaar barki borom mais pourquoi pourquoi pourquoi mu ñeme la. kii waaw moo moo tax ñeme na musibaam. Ah? ñeme ma mooy ñeme nga sa musiba. kii du dara. booy billaay la mën. barki maam Cheikh Fall ma la xaru coogal la du dërëm. yow nee na xaru coogal pël pël la si biir ah baax la ma am ci làmb kii nag daf la ñeme man kii du ma taxaw sax di ma xam-xam ma ne booy bi du sama adversaire. yow la gën a métti gën la tàng laay jàppanteel doo dërëm barki borom daaru doo dërëm déggoo li ma la wax doo dara yow doo dara xam naa yow yaa ma xam yow yow yaa ma xam waaw ah, kon léegi ku nekk na doon ah, kumpa ba bis ba yow xaw ma la yow mën nga ma xam mais man xaw ma la ah, man xaw ma la xaw ma la man ñi fi nekk ñëpp xam nañu man mënoo maa xam man mënoo maa xam da ngay yaru rek ma bëreeg yow déggoo li ma la ma ne da ngay yaru rek ma bëreeg yow booy bu yarul nag bu yarul nag déggoo li ma yow bu yarul ma teg ko ci àndam mu yaru force alquranul karim waxoo dëgg mënoo ci mën cent franc. booy mën a yore booy mën a yore bu ñu jàkkaarloo. déggoo bu ñu eh. jàkkaarloo a yore bu ñu jàkkaarloo da ngay xaar laa la wax barki borom ndindeeg saam da ngay xaar. billaa wallaahi wa taalaay. gaan li ngay xeeñ songoo woo ko. yow yaa xeeñ li ngay diwoowul yow. déggoo li ma la yow li ngay xeeñ di woo li may xeeñ dama seen nëb booy góor nga bëgg moo tax nga jël mais arrangé wu la borom ndindi billaay wallaay wa taalaay booy arrangé boo yow bis ni tey bu ñëwee dañ lay lëng ngay ñibbi. man maay toog plateau. kan mooy toog. Ah, man maay toog maay gërëm. kan mooy toog tëb yàlla ak baaxam. yow boo waxee loolu sax ñii seeraan sax gëmuñ. déggoo li ma la wax de man man gëmuñ li ñuy wax. maay toog maay gërëm waaye léegi waaye léegi njool. kii wala ñu nii nii laa la waxante ne nii ñii seeraan sax xam nañ tournée léegi tournée ñu ñu waxtaan léegi dafa am benn rubrique bu bees bu tudd top 3 ba xam yow di nga ko fa dugal wala. top 3 kii top 35 laa koy dugal. déggoo ma de. kan moo fay dugal moom top 35 laa koy yóbbu. top 35 waaw da ngaa yem ci 3 bi kii déggoo li ma la wax dama koy daan ba mu ñibbi. muy ah. soog a comprendre moom. yaa koy dugal top 3. kii fu ma ko bëgg a dugal laa koy dugal laa la wax. Ah. waaw. Ndiol nee na dama lay dugal top 3. si kàttanu yàlla kii dama koy dugal top 4. yaa ngi may xam nga 3 ngeen jëm. Mhm. mais quatrième la jëm. da ngay xaar ba jamono biir na ku tedd gi. si kàttanu yàlla booy dama lay daan. da ngay xaar. billaay si kàttanu yàlla dama koy daan kii billaay wallaay dama koy daan moom moo la gën a xam loolu si kàttanu yàlla dama koy daan billaay booy bi lii rek la am ci laamu ji. demal nga bërëngu kii ñeme na la de ñeme na la pour ñu wax. boo yow lii rek nga am ci laamu ji wax wax rek nga ci am moo tax yaa ngay def defal non loolu ngay def defal loolu rek mais man maay jëf eh. yow yaay wax mais man maay jëf yow yaay wax man maay jëf. ñoo la ndaama maa kii day laam. njoog ndaama la kii day xaar. Ah, kii day xaar ba jamono neex. yooyu yooyu dama koy jàpp ba pare sigi na gars jóg leen ba ñëpp jóg. ma defar li ma bëgg déggoo li ma ñeme na musibaam ñeme na musibaam. Eh. xam nga xam nga xam nga xunxuneer ñaaka xam moo ko tax a yoola xeetam. déggoo ma de ma ne. xunxuneer ah. ñaaka xam xetam moo ko tax a yoola xeetam. Mm-hmm. xam xetam. moo ko tax yoole xeetam. li wax garaaw waaw dafa laal fu mu war a laal. si. nee na da ngaa dugg ah, booy bi moom mu ngi taalif rek kii lii la am ci laa li ma wax da waaw moo tax ñeme sa musiba billaahi da nga maa xamul yow booy xeeb nga sa musiba booy yow da maa xamul mais ba ma xamoon dëgg dëgg ba dëgg wala nga seraan ma eh. di nga xam ne leneen ngay uti ji booy fii nooyul de booy ayca ayca waa léegi caatu Baye Fall bu ñuy wër lu nooy ñu booy bëre caatu Baye Fall ñu gis promoteur bi promotrice bi jigéen la te tey pour l'instant wax dëgg yàlla def na xaas bari ci lamb ak lan lay xaar ci yéen waaw moom moom liñ def lu dul ñaanal ko rek. waaw ndax li li muy def nii yombul. waaw nga nekk jigéen ba pare xam nga di rey sa boobu si laamu yombul quoi. waaw dañ koy ñaanal rek. mu gën a góorgóorlu jàpp taw baay te xam ne nii la laamu moom neexul dara neexu si. léppay metti. di ko encouragé rek mais mais est-ce que euh, euh, lim soxla lépp lépp di ngeen ko ko jox. parce que tout dëgg. journée boo xam ne 14 décembre journée bu neex la te ku tëgg caatu Baye Fall xam ne daanaan nga tëgg est ce que di ngeen ko ko jox. ñun la soxla est ce que di ngeen ko ko andi. ñun du am dara lu muy lu muy lu muy rëcc si ñun. Mhm. déedéet ñun ku ñuy ñam ñamaan ñu. ku ñam ñamaan ñu waaw mhm. ñun bu ñu jógee gox moo ñuy topp. Mhm. secteur Soxna Bek Tivaouane Peulh. Daaru Salaam. Kër Massar ñun ñi ñuy topp dafa bari. te boobaa bu bés ba dina bég torop waaw ay ca jool ñu gis ah, ki nga xamante ne mooy promotrice bi taxawal combat bi di ngeen ko ko waaw ah, mais Fatou Balla Gaye avant tout dañ koy sant quoi parce que yombul tamit ci jigéen muy dund xam ci lu mel ni ci làmb waaw mais nag ñun ku ñu wax tamit wax jaamu gën xam ne ñun ñooy làmb mhm. booy làmb mi ngi jaamu gën barki maam a Fall waaw moo tax mu moom làmb nag mobilisation ku koy wax ci waa jaama ngay fekk baax jaama gën sël ñooy bëre laa la wax def fii yëpp billaay wallaay wa te ku ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg xam ma ci mobilisation xam ku ma xam-xam ma bu baax ci mobilisation maa ngi waa jaama gën yëpp bàyyi ma kenn xam nga tund jaama gën bi yëpp maa ngi leen di woo leen nañ ñëw jàpp ci booy bii pour booy bii dama koy jàpp defaral ko méttiwul barki maam Seera Fall ñu lan ngay tàggoo waaw di sant ñëpp gërëm ñëpp. waaw di jox ñëpp rendez-vous. fi ñaari paan na. la fexe ba na nga dëgg sa bopp la déggoo li ma la wax de. billahi du ko def man. ciment laa benn yoon laay tooy. billaahi wallaahi wa taalaay. moom koy laax bu jour ba est-ce que dina ñemee taxaw. ndax waa ji buñ nga jaaxaaroo ak moom wax lu la neex mais bisu géew ba. Ah, waaye kii du dërëm. yow yaa may ragal loo yow. man mbooloo jëlaa. booy yow yaa may ragal loo loo gis rek xamal. booy ku la. booy man jaamu gën laa dëkk de. sa yaakaar da lay barki maam Seera Fall jaamu gën laa dëkk. sa yi ngay def nii nii nii nii bëggu ma sax. jotoo laa juddoo ginnaaw raay. waranka laa juddoo. déggoo li ma wax de yo ngay tapet delloo avance ñaata yoon yow ngay ragal. jour ba taxawal dëggal sa bopp déggoo li ma la wax yow yaru ñu bëgg la.